bien sûr que oui waaw parce que bi rek boo xoolee ni mu demee woon nu mënuñu woon jaay mënuñu jëm parce que client yi jën ñemeetuñu génn kon li daal nañ nañ nañ fexe rek mu tel fa yam quoi suñ si mënee jàppale nag waaw parce que. waaw mais loolu moo ñu war sax respecté respecté li li ñu li ñu ñu def li ñu li ñu def loo loolu moo ñu war parce que bu dara sa bopp ngay aar mais daal suñ suñ si mënee teel a wut wut loo xamante dina dina ko génne dëkk moom mooy gën quoi parce que. arrangé dëkk bi yi dëkk liggéey amatut waaw kon daal suñ si mënee jàppale daal mu yem fii daal dañuy dañuy trop. ah dëgg naa ne de na Sénégal on a aujourd'hui trois cas yàlla na fi am. te dëgg naa ñu moo gën a garaaw euh, euh, bi bi ah benn la rek c'est la même chose hein. c'est la même chose ah bien sûr am na kay bari kay actuellement rek li ma leen jënd yëpp daa yokk je viens de Louga. je voulais acheter euh, de la marchandise, mais tout, tout, tout, tout a augmenté. Alors, donc, <laughs> bu beneen variant ñëwaatee aussi ce sera le pire waaw que jënd préserve rek bien sûr je suis obligé <laughs> ma répéter mesures barrières de di fekkante me protéger moi-même aussi ba amul lu ko gën lu ko lu ko gën a nekk farata si man mais nag euh, quant à nag ñu bañ a dox seen soxla moom il n'est pas question waaw. maanaam couvre-feu. couvre-feu daal moom d'accord ma si moom. parce que li waral couvre-feu bi am moo amut boo nit boo ko téye boo yeewee xarta na ko jox lu mu lekk mais boo téye nit ki mu dox ay activité ay ay ay sources de revenus ko te dara aussi mais kooku mooy mooy yaa ko rey ah bu dee yaa ah. moom d'accord si waaw. amoon ci Covid ba jusqu'à présent dara jeexagu ci jafe-jafe yi moom ñu ngi gën a tar kon ñun waxaguñu léegi li nga xam ne ni commencé gul moom waxaguñ ko ñun génnaguñ ci li ñu nekkoon ba léegi. parce que jafe-jafe yi moom tey la ñu gën a métti waaw tey lañ ko gën a dund euh, vraiment réew mi métti na doo mën a comprendre fan la doo xam nan la daal et puis da ngay dem ba mujj da ngay xaw a maar kon su ci leneen yokk moom loolu yàlla nañ ci yàlla musal xanaa ñu ñaan suñu borom mu bañ yaatu daal mu bañ am sax boog yaatu sax ay moom yooyu déedéet mu bañ a am complètement nañuy ñaan ci réew mi jàmm ay Covid yi ñuy créé man astafurlah bu ma ne créé sax parce que loolu feebar bu yàlla suñu borom dogal la mais là vraiment euh, dal ñu jéem am nu ñu neneen dal nuñ koy expliquer doom adam yi tamit parce que fever mom yag nak aduna doom adam mom mom ak feebar lañ bolé dundok dé dee Covid fi la ko fekk fi la koy hein mais amna no noo man pour man dañuy dem bi xaw ko yobu ci état bo xam bon vraiment da ngay mujj dem bi xaw xaw ko gëm di yalla dal ngay dow sa lee wala ngay moytu wala nga xam nga de dee moom kenn mënu ko raw daal pour man ok baax na nag ngay moytu baax na tamit ñuy wante xel comme ni ko gars yi di tàmm di waxee mais ñu ñaan yàlla daal yàlla yemal leen ñi ko fii parce que li ñu dund ci Covid bi moom ba tey métit bi mu ngi ñu ngi koy wee mu ngi wéy ci euh, senegal xëy na àdduna bi yëpp sax daanaka. ko ah, waaw waaw kan man moom ma sam bopp comme ni ñu defee woon rek ci kii euh, Covid bi. su ci taxawee taxawaay boobu rek ma def ko comme ni ñu ko defee woon parce que man nit laa rek comme ñëpp waaw. non moom kay yàq na bi commencé gul sax yàq na sax di commencé gul parce que déjà rek mbokkaan na ci li may xalaataat su ñëwee nan la kon yàq na day yëgseegul de yàlla bu mu yëgsi kon loolu moom yàlla yàlla jàppale rek mu bañ a yëgsi yàq na moom da commencé gul déjà parce que ni nga ma ko déggee rek euh, bokk na yokkaan na ma ay xalaat. day maa ngi woon nekk ci leneen kon dèjà yàq na de ñëwagul yàlla na ko yàlla nag ñu ñaan yàlla daal mu bañ a ñëw. waaw nekk na loo xamante ne ñun dañ danañ danañu xaw a jaaxal tuuti quoi parce que bon ñun ñun bon bi corona bi ñëwee ba léegi dafa bari ay kii quoi ay variant chaque jour delta euh, oméga dafa bëri daal xam nga comme tey bu ñu ñëwaatee indi ñu euh, nu mu tudd euh, omicron ñun daal xamuñ la ñun instant yi dañu jaxasoo ko

donc bon bi moom bu ñëw moom je crois bon boobaa boobaa ñun moy moy lolu quoi Ah voilà exactement. non variant omicron bi liñ ci mëna wax rek euh sénégalais yi fagaru parce que Covid 19 batay jéxagul won et que 1 million et quelques lañ wax lañu vacciner donc pour ñu am euh, immunité bi collective faaw ñu vacciner plus de 70 donc ñun couvrir guñ won lolu donc omicron bi yexi cela veut dire que ni ba le virus bi fi nekkoon mu ngi fi variant delta mais c'est la responsabilité étatique parce que dañoo gis ni état bi day jékki-jékki rek def gestion taf yëngal bàyyi le ginnaaw alors que la prévention la surveillance épidémiologique lii waroon nañ ko bàyyi xel parce que même les pays développés nous, tëj seeni musuñu arrêté ñun Sénégal ñu dem ba benn moment ñu gis même ki ñu dénk la santé dafa fa fait dem politique donc suñu ministère de la santé ci boppam variant bi mën nañ imputer responsabilité parce que tamit lu toll ni santé ñu jóge ci Covid ñun jotaguñu vaccin yu doy couvrir guñu à 100 la communication vaccin baaxul sénégalais yi ba léegi accepté guñu vaccin bi passe sanitaire bi ñu ngi koy donc changement de comportement nous ñoom ñu bàyyi fi loolu continuer ci campagne électorale retourner waat en en ne pas respecter les barrières donc tey bu Omicron yegsee te ñu ngi jëm ci campagne électorale moi c'est très dangereux et que pour nous wax nit la vérité et que li ñu ci delta bi bañ ñu dal parce que buñ la waxé ben chiffre xamuñu li mu tas si dëkk bi parce que sénégalais yi bëgguñu dem nanguwuñu won Covid bi à 100 donc cela veut dire que ni omicron bi buñ ñu ne deux mën na ko dépasser léegi nag fi jëm ak jaxaso yi ak fi jëm donc c'est à eux de prendre la première responsabilité nak c'est le ministère de la santé parce que lo yor santé wara yor surveillance épidémique di nek sur le terrain aussi il faut que ñu dépolitiser la santé il ak les scientifiques tay bu une commission scientifique buy dox.

mesures yi nga jëloon mo baissé sa croissance mesures yi nga jëloon moy 80 de l'économie, xey amul liguey amul mbedd bi nit ñi ci mbedd bi lañuy ñuy nekk dañuy taaba taaba nit ñi amuñu fuñu ñu dëkk boo jëlaatee ay mesures draconiennes moy bu ñu yegg ci mesures yoyu kon na état bi jëlaat affaire yi en avant teel a ibbi centre yi teel a communication bi teel a waxaat ak sénégalais dem ci kër sëriñ té le ministre en santé mu déchargé wu lu toll ni ville de Dakar di démb mu ngi présenté son programme alors que tay ñu ngi ci programme santé bu parégul donc c'est ça le problème disons la vérité il faut que le président de la république décharge ñi yor santé bi bàyyi les scientifiques Et tey si on jëm ni mooy bu ñu ay mesures draconiennes sénégalais duñ ko respecté parce que sénégalais aussi bu ñu amul lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu fu dëkk aussi doo leen problème de l'état fu ñu jëm euh, non non là gis nga bi premier santé bi ñu njëkk ñetti ñetti étape am nañ fausse faux départ on a eu le premier faux départ ci bi ñu première covid bi deuxième faux départ bi delta bi ñëwaatee gis nga ni mu def am ay lits réanimateur ñu am problème fu ñu leen dalal centre réanimation yi coow li ne kur jàppal Seydi indil professeur indil ministère de la santé ñu dem ba affaire bi bese sëñ taxaa ñaan yi mbay si man Mansour gis nañ taxawaay yi mu kum ba ren lay doog a ibbiwaat mosquée mais bu ñu yegg si waatee fii état du Sénégal nga xam ne ñoom sëñ Muntaxa ak ñoom sëñ Mbaye Sy Mansour ñoo ko gën a mën a jël sax ay prévention moom état bi yor suñu santé yor suñu médecine yor suñu lépp talu ko mu ngi politique mu ngi tournée économique Nous avons ci une campagne électorale Nous ku xam élection nous ne ay la ni mesures barrières et ay meeting donc c'est le ministère de la santé qui a santé le président de la en la santé des Sénégalais l'économie rime avec cette santé cette pandémie